ñu pour ñu def grand combat léegi bantamba ñoo ñëw sam papa nekk ci suuf ne ma eh, xam nga lan la du ma sa moroom du ma nekk fii di bantamba nga toog foofu ana seen caméra man ko ñëwul mu ne ma kaay bantamba ma def Ibamar bantamba boo xamante ni nii ba tey dafa def ma marqué man dafa marqué karaajo mi monté bantamba ñu def ay bantamba yoo xam mooy ci la ñuy fecculoo Pa Abdou Babali suma maam ak yeneen ay affaire yu neex ci biir bantamba bi bantamba bi daw waa Sen TV mere ma waa 2STV kontaan waaw Sen TV grand bi ma fa doon xaw a jafe indil jafe-jafe yi sax grand boobu moom xaw ma mere waa 2S kontaan ma dem Sen TV mu ne ma boo yow li nga liggéey ma ne ko la même chose laay liggéeyal Sen TV au fait monteur yi duñ benn kii monte fee ak kii monte fee du benn kee Karajo la te kii Ibrahima la du benn. na góor góorgóorlu mais léegi boo seetloo Ibrahima mi ngi ci téye na loxo bi karaajo kontaan seetaan ko ne sam papa vraiment baax nga trop mais booy bi laa soxla <laughs> billaahi kon yow kay yaa marodel paa bi sa yaa ko marodel sa bopp yow karaajo bandaamaa bi daa daw rek mun ne sam nu man de nu mu mën a def dinaa fexe Modou Mbaye ñëw damaa xëy un jour sama papa alaaj Ndiaye woo ma kaay sama bureau dama la soxla ma ñëw ñaata lañ lay fay fee ma ne ko fee lii lañ may fay mu ne ma bàyyil <laughs> ba daa doublé xaalis ba. non doublé wu ko sax mais avant ma fay jógee moom moo ma doon fayal école. waaw moo ma doon fayal ma jàng. sub info fayal na ma fa deux ans ma dem si seen TV mu arrêté fay bi dama fayalal sa bopp <laughs> mujj bi may jàng seen TV di fayal sama bopp di continuer sama formation sub info di continuer liggéey bi comprendre nga. nii la demee loolu moo yóbbu 2S. Mm. am na solo léegi damay dugg ci biir làmb ji complètement taala parce que waxtaan bi nee na parce que li day baax ñu xam ko daal jaar-jaar bi am na solo trop tamit damay ñëw ci biir làmb gis nañ ci biir làmb tey euh, damay faral di seetlu ay làmb yu bari mu da ciy faral di am ay jafe ak mbër yi. gis nañ ko ci waa Kër Sa gis nañ ko ci su ma jumul bëri ki dem benn tournage ak Lac de ak yeneen ak yeneen ko lu xew lan mooy problème mu Modou ak mbër yi mu dafa far wala. wallaahi. lan mooy problème bi. xam nga africain wala sénégalais moo xamul sans su sport dafa am définition bu sport am c'est un esprit sain dans un corps sain xel mu sell ci yaram mu sell xel mi mooy doxal yaram bi. bu xel mi sellul rek yaram bi du sell te bu xel mi sellul dara du sell ci li ñuy def il faut mbër am esprit de dépassement Omar reporter BeIN Sport Barcelone lay supporter ba ñëpp xam ko. waaw Omar xam naa Omar damay seetaan émission Omar. Barcelone lay supporter ba ñëpp xam ko waa Real dañ ko cee mere dañoo toll loolu te passé nañ niveau boobu nañu màgg Babacar lu la dugal ci liggéey bi yow. samay waajur ak sama njaboot waaw. loolu ma fi tax a dugg. billaahi wallaahi wal talum amuma jotul faral mbër. taluma ko mbër bu ci foog ni booy Niang lañ may wax kaawam chaque jour. waaw am na ñuy wax ne Boy Niang mooy sa mbër waa Pikine sax en général. waa Pikine en général Babacar man je suis de Pikine fa laa juddoo jàngee ba ak toll ni ma toll su may am di jàmm yi ëpp sama meilleur ami Pikine la dëkk Moussa Ndiaye Babacar. billahi Boy Niang xam nga kañ laa ko gëj dégg <laughs> kan la mujjee bëreel saa kees bi mu daanee saa kees. pour ñu def bantamba boobu dañ maa woo ne ma il faut nga jël Boy Niang bantambaa ma woo ko ne ko mbër bantambaa mu ne ma ñëwal ma ñëw jour boobu lañ koy déggantewaat ba xam nga kañ jour bi ñuy gisantewaat ci signature am ak Lac bu mujj bi am ni 2STV. waaw wala yi ko jiitu wala signature yi ko jiitu mais bi combat am ak Lac taxawee la ñu gisantewaat te ci signature la. Ama Balde sax li ma séq ak Ama séquma ko ak Boy lu garaaw laa lay wax li ma séq ak Ama Baldé ci ay gestes demalante li ma séq ak Sa ci demalante li ma sekk ak Balla Gaye 2 Modou Lo Eumeu ko ak Boy Niang kon lan mooy fu problème bi nekk kon lan moo tax ñu indexé la noonu noonu géwél la géwél la <laughs> Boy Niang géwél la géwél te bu dee géwél la géwél laa moo tax ñu may bàyyi buñ ma nañ ma baax ndax sama deret la faraluma ko nag sama yoon nekkul ci moom mais sama deret la ñoo bokk askan tey bu ñu àndoon bu ñu dàqoon ñooy bokk fañ jëm ñoo bokk benn askan géwél la géwél laa mais ça veut pas dire que dama koy faral booy Niang géwél la moo tax ma koy faral xanaa kon Mame mbay Mbaye moom la faral xanaa kon Dou Seck moom la faral xanaa kon Bécaye moom la faral xanaa Khadim moom la faral xanaa Ousmane moom la faral xanaa Youssou Ndour moom la faral léegi ñooñu ñëpp lu ñu loon tudd man leen di tudd parce que maa ne si làmb ji amul problème billaahi faralu ma Boy li ma séexal la de Guiers séexuma ko Boy foo teg loolu. li ma seexal la de Guiers ko booy la de sax lu mu bon bon bon bon bon Lac de dinañ déggante bu dul làmb. mais bari ki dem problème bi ma dégg entre ñaar ci tournage lu nekkoon problème bi. moom moo moom moo ne damay ànd ak Boy Niang ma ne ko da woor boo woree ba ngoon da ngay wax dëgg ndax yàlla du ko dëgg la bëgg sama frère la Lac de ànd nañu caravane Casamance ay fan. Modou Lo maa moom li ñu bokk gën a garaaw li ma bokk ak la Boy Niang ñoo bokk ay xàmb maa ngi moom. Talla ndax xam nay xàmb. xam nga looloo gën a garaaw te mosuma ko faral moom Modou Lo laaj ko billaahi xam na ne faraluma ko te ñoo bokk benn maam. ñoo bokk si Modou Lo ñu ñooy seen gé géwél ñoom ñooy suñuy géer fa ñuy suñu village fa ñuy dem di def suñuy yëf ñoo fay tuur yooyu ñoo ko bokk comprendre nga kon il faut ñun nangu dépasser benn niveau man nag damay ñëw ci làmb ak esprit âge bekkaay mooy esprit bul faale esprit no stress gis nga man damay kaf fooree loolu moo ma indi ci làmb bëggal àddina ñii nga xamante ni dañoo dem ba bëgg làmb te bis bu ñu bàyyee làmb rek làmb yàqu parce que père bekkaay nekkatu fi Babacar ñun ñoo fi ne père bekkaay nekkatu fi Xaadim Samb nekkatu fi maanaam soo gisee man la nekkatu fi li liñ nekkee woon sur le terrain nekkeetuñ ko fi ñu doon âge bi mayatu leen ko ñun ñoo fi nekk pour bëggal sénégalais yi bu buñ ci ragal dara man bu fekkente ne booy ñaa wala faral nit wala wax waxi nit mooy tax pour ñoom ñu foog ni damay ragal mënumaa ragal njaaye mooy sama maam billaahi lu garaaw laa lay wax xamuma nu ñuy ragalee fii laa dëkk Grand Dakar Pikine laa juddoo xamuma nu ñuy ragalee bu ñu ñu jéem a xoxatal parce que bu ñu jéemee xoxatal après leneen moo ci jug xam riposte day am te bu riposte amee ku ne ñu xam ni am ngay mboq ah te am naa ay mboq de samay mboq ay seef lañ de <laughs> xam nga nañ bàyyi loolu nañ dépassé niveau boobu. mais dinaa ñëwaat foofu parce que dinaa fi génn sax mais dama gis boo xam ne moom Demba Diop ah non Léopold la amoon. comme ba waaw keroog xeex ba xeex ba ko doon xeexal. ba xeexuma ak kenn. <laughs> sam papa laa doon xeexal. gis keroog sala sax waaj. sam laa doon xeexal. raagal. wër na yaa raag bu garaaw. loolu yoon problème ñu koy nuyu. ñu ngi koy nuyu bu baax o passage sunu papa la. ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm. defal ko jàmm bu baax a baax. apart part bi ñu jote woon nit ku baax la. parce que nit ku bëgg làmb la. te aussi nit ku bëgg nit bëgg quartier la. ndax yooyu yëpp bëgg quartier moo ko waral bëgg géejawaay moo ko waral dañ koy comprendre que ni tamit am na benn moment boo xam mag ak xale il ku mag ki di am compréhension parce que moom noonu muy tàngee du mën a contrôler boppam xanaa kon man maa ngi laq kon damaa war a laq xam nga am na yoo xamante ne dañ koy bàyyi xel rek incompréhension la woon mais déggoowaat nañu delluwaat daal <laughs> mer sentiment ba lépp rafet na macha allah waaw keroog ñoo nekk ndowoon tif Fallou Ndiaye ba mu jël fa ay kàddu wax ci ñun ay wax yoo xamante ne nii tamit xam nga te doomam suñu xarit la suñu raq la ñu séq ak doomam ay teraanga séq ak doomam ay gestes yu rafet kon Debo jaw kon am na loo xamante ni nii du ñu nangu mu yàq suñu digganteek moom seytaane la woon rek. Hmm. léegi tey nag damay dugg si ay combat yoo xam ne foofu moom am naa fa la affaire bay jaare jeex ak sa frère yi ma di leen nuyu ñoom Matar ak xam nga Pape Mourou ak kële ñu joxeeti euh, Petit Mbay ak ak Papa Omar Baar ak sama turandoo baaba Babacar kooku moom moom nana man man lay dund moom maa koy bégal Petit Guiré waaw moom sama waay la